vingt cinq amuñu ko lan la ñu bëgg sacrifier leen c'est pas possible donc man li ma yaakaar moom mooy na xale yi jóg de Fongolemi à Touba de Ziguinchor à Yamoussoukro de li du liberia au Kenya na xale yi jóg ñu àndandoo avec les artistes avec les porteurs de voix les leaders d'opinion ñu taxaw ñoom defante ko ba ñu changer système bi yi ñuy xeex yëpp tant que système yi changé wul du sotti te wax nañ ko léegi pandémie bi dafa ñëw gën a lëmbee yëf yi ça va être incroyable hein? le président Macky Sall parle de récession la récession elle est là elle est là mi ngi fii du nekkul sunu kanam mi ngi fii dafay metti kon nag ndox kon dafay metti nañu jóg ñun taxaw pour mettit boobu mu mën a wàññeeku pour sunu jeunesse. loolu laa bëggoon wax président juróom di wax ne que affaire bi dama ko jël ak xol comme ñun ñëpp te dañ ci war a jóg ak xol te képp ku nelaw bokkuloo ci Afrique képp ku nelaw ci mbir mi bokkuloo ci Afrique nañ ko xam liñ ñu lebal barewut li ñu jox possibilité barewut kon ndaw yi jóg leen loolu laa doon bëgg a wax wasalaam